rapport à l'élection présidentielle maintenant dossier bi comme amatul benn galgal amatul benn intérêt si ñoom ban intérêt la radiation dugal nañ fexe nañ bu dugal loi dem tribunal di àttewaat ay raj ban njëriñ la ban intérêt la am waxante dëgg. ñu ping pongee daal waaye mais amul benn sens loi d'amnistie bi jàll na loolu mais partant la léegi bu tribunal tribunal tribunal jox leen encore une fois jox leen dëgg ñoom l'État du Sénégal ak deug bo fu mu mën a mais day genn lo d'amnistie bi sibi jallna ñoom fexé nañ bam jall jàll wala loi d'amnistie bi kon concerné wul Ousmane Sonko day génn Sonko day genn kasso xam nañ ko ñom mais pourquoi cela tarde justement bala ñu ñu ci procès bi nga xam ni itam si ñu neewul woon nañu ko reprendre si di Miram ak Adji Sarr euh, pourquoi cette libération tarde peut-être da nga japp ni y a des calculs derrière. am na il y a certainement des calculs te man jàpp naa ni jour. Euh, hmm. jour quand euh, lañ doon def manifestation bi le lancement de campagne bi. Hmm. c'était pas hier euh, dimanche dimanche dimanche dimanche. man jàpp naa dimanche boobu sax la waroon génn waaw dama ko jàpp. donc pourquoi mu tardé mais après bon engouement bi ci am. xam nga xale yi passé fii dañoo xër ci Ousmane Sonko. déjà rek bi annoncé ni Sonko parce que man gis naa ay cadre ay kàngaami APR yu ko publier ni Sonko libéré nañ Hmm, parce que waaw ça ça man ay gangam ay patron ak libération Bassirou Diomaye fay aussi man jàpp naa dimanche la man ci ay patron ay kangami yi aper. APR gis ñu def ko ñu ni Sonko génn na mais après engouement bi ci am xam nga xalé passé fi dañu xër ci Sonko moy li ma hmm. doon wax rek Sonko passé bok mën nga ko mengalé ak daayira yi hmm. daayira yi ni daayira yi mën nga ko mengalé ak passé passé daayira la comme daayira waaw ñoom dañoo am comme daa yenn daayira yi lu ñu naan sëriñ diw xalifa hmm. diw Pastef ñoom dañoo am koo xamante ni moom rek la ñuy déglu te moom la ñuy topp te pratiquement loolu am ci daayira yi moo tax ma leen Pastef comme daayira ñoom kenn la ñuy déglu lu mu leen wax la ñuy def lu mu leen wax loolu la ñuy bàyyi hmm. kooku bu leen woon bank leen seen loxo ci élection yi sax ñu bank seen loxo Bassirou Diomaye Faye ni ba ko Sonko ne moom la tànn ba léegi foo tourné Diomaye Diomaye Diomaye hmm. ngay dégg Euh, donc du liggéeyam mais liggéey parce liggéeyu Ousmane Sonko kon nga xam ni euh, euh, man je pense que ñàkk génn boobu ci moment boobu li ko jur loolu la engouement boobu. Hmm. waa engouement populaire bi. alors ragal naa daal da ngay xëy rek dégg Ousmane Sonko mu ngi këram.

campagne jours ah, jours. du jours non des dix jours. campagne campagne bi mu campagne. donc campagne bi jeexagul espérer espérer Ousmane libre. wa mais. Euh, peut-être sab jangat non dans la réalité des choses il fa a guen mais la la fay def fex nañ loi si fay si na peut-être loi bi est-ce que promulgué nañ ko ou non. Hmm. peut-être peut-être parce que dégguma fenn fu ñu promulgué loi bien hein. non non pour euh, promulgué wu ñu ko ñu koy xaar ok mais dina génn xëy peut-être dañoo promulguer gu loi bi loolu nag échappé na mu tuuti quoi su que loi bi promulgué guñ ko mënagul am effet day des tuuti mais day génn quoi qu'il en arrive Sonko bientôt il sera libre te Sonko bu andak ak Bassirou Diomaye Faye campagne lolou catastrophe la pour le régime <laughs> yow ko xam ci élection législative yi ñu genn

Euh, ginnaaw ba contumance bi daal di li nga xam ne euh, un di anéantiru mhm. j'y arrive exactement est-ce que mën nañ donc espérer euh, à une reprise justement du procès de Sonko ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr ki ne até par contumance mooy koo gisul donc soo gisee lu nu mel dafay anéantir ñu amaat benn procès <laughs> euh, benn àtte par rapport ak wàllu wu nu mel. mais ban procès man loolu mooy laaj. Euh, diggante ak Adji Sarr Ousmane Sonko sëñ est-ce que si xaar procès. man Adji Sarr sax Adji Sarr gisoo ko yow. Adji Sarr mi ngi fi du feete euh,